mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre euh, de la pêche maa ngi lay euh, nuyu euh, dafa amoon benn buur buur bi dafa jël benn nit sës ko rëkk ci kawam ne yow benn liggéey rek laa la dénk liggéey bi ma la dénk mooy yow day may wax chaque jour benn mbir mbir boobu mooy chaque jour day may wax nit dong nga nit dong nga nit dong nga ci république monsieur le ministre assemblée nationale parlement moom la ñu dénk mission boobu di fàttali président de la république ak gouvernement fàttaliku leen askan wi fàttaliku leen askan wi. loolu moo tax monsieur le ministre ma bind la juróomi yoon yow xam nga ndax tontu nga ma wala tontoo ma ma bind la juróomi yoon c'est pas sama mbégte bopp déedéet ma bind juróomi yoon ci wàllu napp boobu maa lay wax monsieur le ministre géej bi am na lu fa xew de moytul géej gi de moytul géej gi de moytul géej gi de ni ma la ko defee. noonu laa ko defee say morom ministre ministre du travail ministre de ministre de l'enseignement supérieur naan leen moytu leen am na luy ñëw am na luy ñëw ba tey jii nii suñu doom yi ñu ngi dee ci géej gi suñu doom ñu ngi dee ci géej gi monsieur le ministre vous êtes le premier responsable de la mort de nos enfants dans la mer c'est vous qui les avez tués vous avec les membres du gouvernement vous avec le président de la République Macky Sall un d'abord parce que da ngeen wanteer géej gi wanteer géej gi mooy jël jën gi ci loxo suñu nappkat yi jël jën yi ci loxo suñu femme transformatrice ak mareyeurs yi jox ko bateau tubaab yi bateau russe bateau chinois yi ñaareel bi mooy mais le bateau le bateau qui permet à l'ISRA de faire des des évaluations pour xool où en est l'état des ressources depuis 2016 mu ngi pan parce que ça ne vous intéresse pas waxal askan wi ne dafa am benn bateau boo xam ne moom la ñuy defee évaluation pour xool jën yi fu mu toll ci géej gi ndax bëri na ndax tuuti na ndax le seuil est critique ou pas bateau boobu mu ngi panne depuis 2016 ndax benn pompe buy jar million millions une pompe qui coûte million millions le bateau Itaf Dem depuis 2016 est en panne ça ne vous intéresse pas parce que weer bu nekk yaa ngi jot payoor le salaire des pêcheurs mooy géej gisatuñu jën gisatuñu dara ndax ya ndax lan wanteer bi ngeen wanteer géej bi et le refus de contrôler au lieu ngeen surveiller les bateaux de l'Union européenne ngeen di surveiller ay Ousmane Sonko di surveiller ay membres PASTEF ce qu'on vous demande c'est de surveiller les poissons vous riez jaune en réalité mais vous devriez avoir honte de rire monsieur le ministre parce que vous n'avez pas fait votre job C'est à cause de vous que les femmes transformatrices n'ont plus de poissons à transformer. C'est à cause de vous que les marieurs ne voient plus de poissons. yéen a tax les pêcheurs se sont transformés en convoyeurs parce que gisatuñu jën dañuy daw une semaine dix jours ñuy lakk essence te duñu gis dara ndax lan ndax yéen monsieur le ministre des finances il y a quatre décrets quatre décrets concernant l'ISRA. Un seul décret a été adopté. Il reste trois décrets. Trois décrets qui attendent, Monsieur le ministre des Finances, votre avis de conformité. Il y a trois décrets qui attendent votre avis de conformité. Ces décrets-là ont une incidence sur la situation des chercheurs de l'ISRA, dont certains sont dans le domaine de la pêche. Leurs salaires sont misérables. Soutenir la recherche au Sénégal, c'est soutenir les chercheurs. Et parmi ces chercheurs-là, il y en a qui sont dans le domaine de la pêche. Monsieur le, Monsieur le ministre des Finances, tout ce que vous pourriez faire pour accélérer cela, ce serait bien, parce que ça les motive. Renforcer le budget de la recherche, parce que les bailleurs de fonds viennent avec leurs objectifs, qui ne sont pas forcément nos objectifs à nous, nos priorités à nous. Et donc, ils sont obligés de travailler sur les objectifs des autres, sur les priorités des autres. et non sur nos priorités à nous, Sénégal. Donc renforcer la recherche, appuyer ces chercheurs. Ils sont bons, ils sont excellents. Ils sont sortis des mêmes écoles que vous et ils sont capables de choses des projets. S'ils n'ont pas de projet avec des bailleurs extérieurs, ils n'ont rien. mbokk yi 2024 Ousmane Sonko cinquième président de la République du Sénégal nous allons casser les accords de pêche.